ak yuux gu réy bi loolu amee ñépp waaru balaa jante naan kii mooy kan mii njàngale lu bees la te ànd ak sañ-sañ day sant rab yi sax ñu di ko déggal noonu turam daldi siiw ci diiwaanu galile gépp bi nga xamee ne gën nañu ci jàngu bi ñu ànd ak saak ak yowaan